asalaamaaleykum internet yi Asmamoun Diop international sénégalais spécial CAN 2022 tey nag ñu ngi fii ci Sodida Sénégal broderie seet si un grand sportif ñu koy wax Modou Mbacké Fall muy nit ku baax nit koo xam ne mën nañu wax nii c'est un grand sportif tey nag moom lañu bëgg a seet si fii ci bureau am waxtaan ak moom ci. sentiment bi mu am après la finale ma bëgg ànd ak yéen rek won leen ko parce que war nañ waxtaanee ci ci après la finale ci coupe de coupe d' bi war nañ waxtaanee tamit ci football local parce que tey jii ni ku am vision la ci football ma bëgg nag ànd ak yéen dugg ci biir waxtaan ak moom won leen sentiment bi mu am incha allah fii ci biir Sénégal broderie muy nit ku baax di grand boo xam ne wax dëgg yàlla euh, daf may fàttali lu bari ndax euh, bi may joué jaraaf mi ngi fi woon mën naa wax ni euh, dirigeant jaraaf la woon mag a mag a mag a mag muy nit ku baax nit koo xam ne mun wax ni sénégal ñëpp ko xam ci def lu baax un homme social waaw di talibé serigne touba ñu contane trop ci moom salaamaaleykum soxna si maa ngi leen di ziar ñu ziar ana ana ana ana sunu grand bi le grand sportif grand modou mbacke mo ngi ci biir ah. waaw waaw comme nga yëglu ñu rek d'accord inshallah merci waaw comme noonu la ñu ngi fii nag ci biir euh, complexe bi waaw di ko xaar rek pour mu recevoir ñu ñu waxtaan ak moom acca leen grand frère maa ngi am mbégte loolu nag ñëw fii ci bureau bi. waaw yal na ah. yàlla ko ngi sant bu baax rek ci taw. waaw di wax ni rek euh, ci ñëw dama ñëw rek ci un grand sportif waaw tegi ñu ngi doog a jógee ci ci coupe d'Afrique bi Sénégal jël coupe bi tey nag ñu war a ñëw rek seet si la xool ban sentiment nga am rek après la finale. doo xanaa kontaan rek après la finale moom comme tout le monde. Euh, yëf yi dañ ko yàgg xaar mais comme yàlla suturaal nañu ba léegi am nañu une étoile ci suñu poitrine am étoile ci dënd bi sant yàlla bon sant yàlla moom mënu ko passé boo xawee def quelques jours ci football bi gis que ni yàgg nga souffrir parce que souffrance laa ko mos a tuddee parce que parce que am des équipes yoo xam dafa lay leer ni kenn mënuloo peut-être te mënuloo gagné kenn xamul woon lan mais xëy na nag bon comme ay jullit lañu aussi dañ jàpp rek yàlla ñu ngi koy dogal dogal donc nag mënuñu lu dul nag vraiment content ci di féliciter Sénégal yëpp aussi di féliciter l'entraîneur di féliciter toute l'équipe la direction technique l'encadrement la fédération et cetera et le peuple surtout nag ak le président de la république nga xam ne lu ne def na ko ci donc nag di ko partager ak tout le monde. waaw jërëjëf kàddu yi rafet na waaye tamit xam na ni am nga vision ci football tey jii nii nan nga gisee équipe nationale Sénégal équipe bi. Bon, l'équipe de c'est une équipe jeune. Bon, moyen d'âge, ça fait 27 ans. 27 à 28 ans. Ou, 26 à 27 ans. Donc, ils ont. Nous avons eu des années devant nous. Bon, nous a le des Moi, je crois même en 2000, 2000, 2023. Bon, Coupe d'Afrique, on a une forte chance pour conserver notre titre l'Égypte l'avait fait en 2000 euh, bi Coupe d'Afrique en 2006 dañ ko en 2008 jël en 2010 d'affilée mais avant un piège bu parce qu'ils ont resté après trois Coupes d'Afrique d'affilée qualifiées donc ils ont été trois fois champions d'Afrique d'affilée jël en 2006 en jël en 2008 je crois que c'était au Ghana après jël en 2010 je crois que c'était en Afrique du Sud je ne me rappelle plus des des pays bon donc ñom d'affilée lañ ko jël parce que ils avaient c'était la génération de Abou Troïka ak ñeneen ñi bon un peu mido vers sa fin donc ñun lii ñu yàlla defal ni mu tombé parce que problème moy je yëf du du football kese parce que faut mu c'est un ensemble il faut mu ànd discipline il faut mu ànd ak fayda il faut mu ànd ak fighting te loolu moo ñu manqué woon te loolu la yalla yàlla defal ñu am ko résultat bi dafa suivre bon cette génération nak bon elles sont vraiment exceptionnel par rapport aux autres parce que li ñu am c'est exceptionnel parce que ñëpp jaar nañ fi man yàgg naa ci football bi yoo xam nga ci dara parce que ah, seen seen seen époque bi ngeen di jouer maa doon seen seen maa leen doon diriger yow Moussa Badiane ak euh, je crois Moustapha Mendy Lamine Sarr leen yàlla yërëm leen. Ablaye Sagna ñooñu ñëpp yow yow yow man maa bi ngeen bi bi bi leen lokat yore junior ngeen di qualifier Iba Mar pour dem il Maurice en Coupe d'Afrique donc euh, lu lu xam laay wax daal. parce que déjà moi j'ai débuté en 69 là commencé être ci ci bande de touche ramasseur 73 donc génération 7 ans, un peu fin où ils avant Matar à dem ba le début Matar j'étais très très jeune nous là. 7 8 ans là, mais ci dara donc génération bi ci top moy ñom boy bandé et cetera et cetera nga xol benen génération bi ci top. ba yeen bi ngeen ñëw ba ñii kenn mosu leen football. mais xeyna bobu peut-être moy yi yi état bi am tay ni diko def ci football xeyna moy yoy yooyu nekkuñu fi won aussi tamit nak dirigeants yi aussi c'est pas pareil parce que dirigeants yi mën nañ nekk sax yeneen dirigeants yi gëna mag mais discipline bi am ci football léegi ak professionnalisme bi ci am nu rewul won parce que nit ñi dañ doon jouer avec plaisir. légui nak fini, ne enjeu yi moo garaaw da ngay xol rek bi ñu gagné coupe d'Afrique bi ni rew mi mel donc football mo nekkatul yëfu caaxaan donc nak euh, maa ngi ciy félicité ñëpp une fois encore Nak donc je sais que ne buñu continuer dal discipliné et puis liguey investir surtout ci formation parce que affaire ci formation yi la xoolal génération foot xoolal jàmbaar xoolal ainsi de suite donc ñun biñu ñëwé mais formé wuñ fi formé wuñ fi ñu ño xam naturellement dañ leen formé ay jaraaf ak yoy bo amon na euh, ñoom pas âge yi fi woon cetera mais am xam naturellement dañ doon mën football. léegi nag ñii nag dafay ànd ak leneen parce que il faut que nga jàng soit métier wala nga am xam-xamu école nga xamante ne parce que football bi aussi dafa yàggul dafa gàtt ñi ci réussir dafa dafa dañu néew. donc nag aussi centre de formation yi man li tax ma ma gën vraiment content ci ñoom parce que xale bi dinañ la defal minimum le temps ngay ngay am dis 18 ans di wara a fipp soit da ngay football wala nga dem defi leneen fekk na au moins nga am bac boo amee background nu am nag. même bu football bi doxatu rit aussi am nga chance continuer dans la vie def def def leneen donc nak loolu nak mom man message bi may joxe dal moy état bi nañ gën jàppale club yi parce que club fort yi so len di am toujours tu es toujours présent club yi mom buñ taxawé rek équipe nationale dañuy taxaw ba pare football bi day dem boo xoolee ossature équipe bi nga xol euh, ay ñoom Gana xool ñoom Sadio Mané et consorts ñëpp fi lañ joggé bon ñële aussi amna ño xamni extérieur lañ leen formé ñu ñëw mais tay li fi ne fii nii tey amna na am na booy ñi ngi fi nek ci championnat bi ils ont leur place dans l'équipe nationale ah tey xam nga ci dara. wa lo xam nga. mais mais li li manque toujours moy formation aussi Aliou maa koy féliciter diko encourager diko diko ko di xel nak aussi mu bayi xel le niveau local parce que parce que la direction technique tay supervisés, ñi ngi lu dem euh, j'ai vu ñu investir fu ñuy ils font le point c'est-à-dire les messages wax que l'équipe équipe telle bu Malawi jouer euh, Zimbabwe wala bu Malawi di jouer benen équipe malgré nous nañu que n'importe quel poulain ah, dama joxe exemple pour que nous que équipe yi nañ bañ superviser mais de même nak la sur le plan local tay la direction technique war nañ def xam sur le plan fédération leen embauché ñu jouer tay entraîneur U19 yaa U23 etc. Nous nañu 6 mois duñ am benn compétition mais nañ leen investir ni leen di investir mooy tey bu amee Casa Jeanne d'Arc wala Casa Djara, wala Casa Nangam mais gars yi dem Ziguinchor dem def le point 22 acteurs ñooy joué foofu plus ses remplaçants au moins war nga fa mën détecter kenn koo xam ne war nañ ko suivre. ainsi de suite loolu la ñu war def na pour téye football local bi et puis encourager xale yi aussi ñu jouer. parce que man li ma d'accordul Moussa Badiane ak Boy Sow bi nekkoon Stade de Mbour Mamadou Sow je crois bi ñuy dem. arabi Saoudite lañ dem man dem naa ba fekk na fa Moussa musa daaw bis bu yàlla sax dañu doon nekk en contact bi muy dem mosuma ci d'accord donc te talent bi ko yàlla mayoon xam nga ci dara talent bi yàlla bu mayoon Mamadou Sow ñooñu war nañu quitter Sénégal dem di jouer deuxième division Arabie Saoudite parce que dañuy dem sur le plan local ba attanatuñu njaboot da lay jàpp avenir famille. pression yi ba booy dem sax doo ko tey te yow aussi pareil bi ngay dem aussi pareil donc da lay lenn heure bi bu la fekkoon niveau bi nga yoroon di football tey amul benn championnat ci àdduna boo mënul jouer bon c'est c'est c'est leur chance léegi nag loolu na li koy mën a dindi mooy ñu révéloo xale yi xam nga jógee Sénégal gi dem Mauritanie di jouer championnat comme Pape Ali Ousmane Niang yaa may dégg parce que man yu ci bari lépp laa téye ay Ali Ousmane bi mu fiy jógee di dem Mauritanie di jouer ji pour ay salaire yoo xamante ne normalement jaraaf waroon nañu mën a fay ko lu ëpp loolu et cetera donc nag loolu la ñu war a mën a téye téye xale yi ba nga xam ne kuy jóg fii di dem rek kenn terewul ko dem mais kuy dem dafa koy jar te te tey damay encouragé xale yi da ngay am 22 ans 23 24 ñu naan la sa nangam yàggul tey mun nga dem ba am 28 ans sax toog fi jouer 29e année mun nga am club boo xam ni. sa signature da lay fay lo xam 10 ans yi nga yi nga demoon taxawaalu ji da koy remplacer te fekk nak ñëpp dañ lay xam nga am background am am vécu ba pare nak def dara pour ton pays. kaddu gogu rafet na am nañ ci mbekté lool parce que vision bi nga am mom ci football euh, macha allah tey jii nii bon final bi passé ni comme Sénégal ak Égypte tay mom lañ amaat encore coupe du monde tey jii boo doon rectifier ci équipe nationale Sénégal lan lañ mëna rectifier ci ñom ba baña a ñom ay prolongation li ñu mën a ratifier ci ñom euh, bon bo xolé nak tactiquement techniquement nga xol 22 euh, acteurs euh, ou 11 Égyptiens, 11 Sénégal franchement parlant égyptiens savent bop xamné ni ñun ñoo leen ëpp doole. équipe nak mën nga ko ëpp doole mën ko mën nga ko ëpp doole sax mu gañe la football mom xam nga ni taxawul mais buñu téggé comme ni ñu jé contre Égypte ba pare gën appliquer. application moy football mom yo xam nga ay possession bon neex na trop mais parfois aussi taxul nga gagner. xam nga. Égypte boo leen bàyyi ballon bi gis nga ni ñu def jéewuñu boo leen bàyyi ballon dinañ orienté di la xaar pour nga génn soo génnee ñoom ñu essayé def li ñu mën a mooy profondeur euh, bett la yaa ma te boo booy boo ku mel ni Nampalys boo xoolee match bi yëpp ni mu ko joué dafa accès rek xam nga jigee gànn nii bu bal bi demee foofu à gauche mu jigee gànn bu demee à droite mu jime mu jige seexu mais foo ko fekk mi ngi reculer pour bañ piège boo xam ni bu ñu la songee moom dina mën a nekk jaay boppam ba pare nga xam ne avant que la défense derrière ak Koulibaly ak euh, ak Diallo di ñëw di ñëw di agsi quoi léegi nak te dalé dalee leen mënatuñu am match bu yom parce que égyptiens yi déjà dañ leen bête ñom japon nañu def dañ doon def piège pour yóbbuñu prolongation mais malheureusement euh, tay expérience bu ñu mën am ci football tay lool nax na leen xam nga te ni mu naxé aussi lool mën nañu nax te ñaanuñu ko yalla moy que ni ñom bi ñuy def loolu faté nañ que ni euh, malheureusement qu'on a eu le meilleur gardien au monde bo amé un meilleur gardien un monde ñu ñu aduna bi yëpp xam ko dafa am respect bo xam da nga koy jox euh équipe bi mal respect bobu nag lañ ñu joxul woon motax ñu orienté ñu vers les séries au but mais man bima ma Koulibaly dem ba gis Diallo ci la xam tay ji du bis bu ñu wara ñak té nak euh, Yalla sutural na ci léegi nak li ci dess nak moy match bi mo gëna a surtout le match aller parce que euh, deux matchs de qualification ça ça euh, ça va se gagner au match aller min kay gagné au match allez moy moy da ngay dem pour gagner tamul leer na ni euh do fa perdre buñ fa perdre le rek buñ ñëw retour dakar mën nañ qualifier té nak té je suis sûr que buñ jouer ci suñu vraie valeur mën nañ gagner match bobu allez inshallah sama deux dernières questions rek damay ñëw parce que mënuma baña wax ci jaraaf mi ngi ci 8 match nek mën mu première waaw tey jii nii boo doon xool doon def euh, benn évaluation ci équipe bu jaraaf début championnat bi laa bëggoon rek nga wax ci. début championnat man comme comme comme comme comme ni nga xamee je suis vice président. donc euh, Cheikh dama koy féliciter une fois encore parce que déjà li mu def ci équipe bi équipe bi bu dee cent quatre-vingt-dix yëpp Cheikh Seck la ñun lu ñu mun def aussi dañuy jàppale Cheikh rek mais kenn mënu ko dab ci ci ci li muy def biir jaraaf bi ñu yàlla dafa lay sutura ba ñu am terrain d' entraînement boo xam dafa lay leen vraie valeur la fi ñuy jouer parce que fi ngay entraîner mook fi ngay compétir waruñu soree de 10 pour cent xam nga minimum su ko defee rek mais xam nga entraîner ci yenn condition yoo xam ni wala entraîner jël bus bu tey yaa ngi fii bu suba doo am benn repère nga dul am mais nag mais depuis que ñu am suñu terrain di di di jouer gis nga ni yëf yi mi ngi changé. équipe bi daaw gis nga ni mel def def nañu une très bonne saison léegi ren it yàlla ngi ñuy suturaal ne nii je crois que on est devant. bu ñu bu ñu jaraaf moom yow xam nga li fa nekk mooy équipe bu mag la bu ci ñëpp jàppee rek équipe bi day dem te ñëpp a ngi ciy jàpp mooy gars yi nit ñi ñëpp ngi ñëwaat. donc nag bu ñëpp ñëwaatee aussi euh, def nañu euh, daaw euh, ligue ligue club dem fi bu ñu malheureusement ñu éliminé ñu te on a fait une très de de très belle prestation match surtout notre match bi ñu joué devant les Nigérians ma j'ai été avec ñoom Boy Band ñun ñoo doon dem. dem yóbbu équipe bi donc nag foofu nag moom mu laa bëgg aussi mooy li ma lay wax ci club fort yi rek nit mënul jàppale club parce que nit day mën day tële nit day am day ñàkk nit day jàpp di méforme mais mais état moom tant que àddunaa ngi fi état ngi fi te état yi nag bu te te club yi aussi boo ko tegee ci yoon teg boo xamante ni dangay day tax nit ki lay jàppale bu demee ba nga xamante ni yaramam permettre tu ko wala âge am permettre ko mais tey xam nga suñu mag ñi fi nekkoon ñoom tonton jaww ngi fi et li Cheikh man tey mënatuñ ko même bu ñu même bu fi moyens yi nekkee âge permettre lu leen ko léegi nag boo demee ba âge bi wala njaboot permettre lu ko boo demee ba tey solo keneen day day compliqué mais bu tegoo ci yoon fi mu war a tegu rek euh, ni ni euh, ku ñëw jàpp ci ku dem aussi tamit équipe day nekkaat au même ko donc nag aussi message la boo xam ne maa ngi koy lancé di ko wax Cheikh mu gën a orienté gën a orienté nit ñaa ngi koy jàppale euh, li muy def man xam naa ni mënu ko sax parce que dafa metti boo xam nga diggante weer ak weer par rapport ak euh, te équipe boo xamante ne amuñu pratiquement benn revenu mais yàlla ñuy suturaal ak projet yi ñu nekk incha allah ci kanam dina gën a dina équipe bi dina gën taxaw

ak ay kubu club ligue des champions nangam c'est des yoo xam ne ay raccourcis la xoolal 2002 fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko yóbbu mooy que ni foo taxaw ci àdduna bi xam nañ kuy Sénégal foo taxaw ci àdduna bi xam nañ kuy El Hadj mais tey nii foo taxaw ci àdduna bi ci semaine bi xam nañu kuy Sénégal foo taxaw xam nañu kuy Sadio Mané donc nag tey yooyu yëpp nag bu ñu tey tey tey pour ñu mën a am yooyu moyens yi bu ci duggul woon man je suis sûr mënuñu dem foofu. kon nak ñu ngi koy remercier diko féliciter diko ñaan mu gestu club yi rat jàppale leen club yi moom jàppale leen na wutal leen ay ay ay infrastructure yu wóor gaay di entraîner stade bi buñ ko ubbee nañ continuer liggéey bi defaraat ay demb job ak yi affaire football bi dox ñu football. jàppale club bi club bu ci amone bu nek ben bisu 60 place bu climatisé bu bien ba paré ba paré xol club bu ci nekk luñ la mëna a subventionné la mais xol ay Côte d'Ivoire ñep ñi club yi ñi ci ciy da te ni lool président fatou ko te dina ci japp incha allah. jërëjëf merci. ñu am mbégte lool nag ci tey jii ci fi mu ñu recevoir tey di Modou Fall di un dirigeant di Jaraaf de Dakar ñu am mbégte lool dégg ngeen kàddu yi rafet yi mu def waaw loolu dañ ci am mbégte rek di leen wax ni rek spécial CAN 2022 la ba léegi rek sur Asmoon TV révivificateur des valeurs dañ leen di jox dig daje rek ci beneen émission jërëjëf merci.